Euh, jërë ngeen jëf mbokki internet yi yéen yi nga xamante ni yéen a baaxoo dañu ñu topp ci info 15 tey nag info 15 dafa daal di déplacé wu ñëw ba ci dëkk bu sell bi di Touba Mbacké ngir fas yéen toppal lépp loo xamante ni nii euh, luy jàll la ci màggal bi ba yéen ñi nga xamante ni euh, sori wala ngant dab na leen ba mënoo leen a yëgsi ngeen mën a baax euh, ngeen mën a fexe ba xam li nga xamante ni mooy xew fii en temps réel. Euh, maa ngi ak laat Diop Lat ñu bàyyi la nga wax ñu yéen waa Info naka ngeen waajee ak lan ngeen préparé pour dëgtal ko téléspectateurs yi mu dellu ci màggal bi. waaw salaamaaleykum Cheikh Ndoye maa lay nuyu fi leen daan nuyoo di la nuyu si seen bu mag bi di info 15 point du nuyu waa Sénégal du nuyu waa àdduna ñëpp. képp nga xam ne yaa ngi suivre seen bu mag bi di info 15 point com di am contentement bu baax a baax si question bi comme ni nga ko waxee ñun waa info 15 lan lañ waajalee ci bis bi ak màggal gi bëgg nañ ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi waroon a ñëw mënuñoo ñëw ñu toog seen kër ak ñi nga xam ne ñëw nañ te yenn yi nekk si kii mënuñu koo gis ñi ne ci dal yeeg yëpp dañ leen ko wan si seen bu mag bi info 15 point di ci ànd ak Cheikh Ndoye ak Cheikh Boscouture ci caméra bi ñu ngi koy nuyu bu baax di ko jàmbaar tey moo nekk ci ci caméra comme ni ko waxee Cheikh Ndoye tey dañoo ñëw fii si màggal gi nga xam ne bu ñu xool ñu taxaw mooy jumaa ji xam ne mooy jumaa yi Seexul Xadim di waral ñuy màggal nga xam ne moom moo waxoon ñëw leen sant la ma bis bi na taam bi na ci tukki bi la waxoon damay sant la bis bi kon ñun murit yi ak ñun taalibe yi du ma murit ndax boo xoolee fii boo fi ñëwee di nga fi fekk bépp xeet murit xaadar tijaan bépp tarixa di nga ko fekk di nga fi fekk tamit bépp xeet di nga fekk bépp religion bi nga xam ne bokkuñoo ñoom diine sax ba ci chrétien yi ñu ngi fii nii ci màggal gi ba ci ñi nga xam ne bokkuñu xeet ñu ngi jugee ba fu nekk di ñëw ngir màggal Serigne Touba Khadim Rassoul Seex. voilà comme ni nga ko waxee rek kon info 15 ak équipe du ñu bàyyi dara lépp loo xamante ni rek euh, nemmeeku nañ ko fii ci bërëb bu sell bi di Touba Mbacké daañu leen ko dëgtal ci noonu sax dañuy ànd rek daal di am ñoo xamante ni dinañ leen fi dalal léegi léegi fi ñu taxaw nii su ko defee mën a séq ak ñoom waxtaan mën a waxtaanee li nga xamante ni mooy euh, màggal gi nga xamante ni ci la ñu ne. waaw comme loolu yéen a koy waaj. waaw kon ñu ngi koy waaj dinañ dajeeg nit ñi ñi nga xam ne ñu ngi jugee màggal gi di ñëw ñu ngi jugee Dakar ñu jugee fenn dinañ dajeeg ñoom laaj leen luñ daj si yoon bi ak li nga xam ne daj nañ ko ci yoon bi pour ñëw màggal si ak lan la leen bis bi jaral bañ daj déplacé wu jugee ay dëkk dëkk ñëw fii dinañ laaj ni nga xam ne ñu ngi si jumaa ji ni ñuy màggale ak ni ñuy ziyaare ku ci nekk daal fi nga jugee ba egg sa dal la fekk sa dal dina la laaj lan nga daj si yoon bi ba ñëw si màgg ak lu waral nga ñëw si bisu Serigne Touba Xaadim Rasuul bi kon ngeen xaar ko Neskis ñu daal di dikk ak yéen ci lépp loo xamante ne rek nemmeeku nañ ko fii ci diwaanu Touba kon nag mbokki téléspectateurs yi nii rek la duñu leen bàyyil dara lépp lu mën a doon lu nekk rek daañu ci ñëw daal di ci waxtaan ak yéen daal di leen koy dëgtal ba yéen ñëpp ngeen mën ci bénéficier wu bu baax a baax a baax comme si ngeen mel ni ñoo xamante ne yéen a ngi teew fii ci diwaanu Touba Mbacké